dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara ma dellu kañaat bakaat waawaaw wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat maam jaara saalihun wa huwa muslihun basirun liman lillahi bilhaqi yusanu naqiyun taqiyun salihun wa huwa muslimun basirun liman lillahi bilhaqi yusanu kii kii kii lay kii ànd ak délégation bii ñëw di la nuyu si day lépp ci yow mi ngi nii àndante ak ministre Serigne Mbaye Thiam mi ngi ànd ak ministre Ba mi ngi ànd ak ministre Sow mi ngi ànd ak ministre Fafana mi ngi àndante ak Ali Mané de Paskoto ak njaboot gi ma àndal yëpp ñëw mi ngi àndante ak gouverneur de la région ak préfet ak sous-préfet bu Paskoto Mbakke. cër yi cër yi ma cër yi ma am ci yow nag dafa bari waaye ba ca njëkk mu gën koo téye mooy ñaari cër yi sa digganteeg président la république fi nga teg président ak ni nga ko jàppee ak sa digganteeg première dame Marème fay Sall mooy première dame bi njëkk ñëw Porokhane ndax yàlla ak sa waaye li mu téye ci yow nag mooy diggante Cheikh Soyebu ak Serigne Saliou ak Cheikh Abdoulaye Lahad ndax moom mii toog umpale woon ni léppam Serigne Saliou la te yow génnoo Serigne Saliou fen sën Saliou ak Serigne Soyebu ñoo bokk lépp waaye nga bëggal ko sa bopp nag am cofeel ci bopp di ko ñaanal guddi ak bëccëg moo tax mu ànd ak membre gouvernement bi mu ne mu yegg si jóge ca Cheikh Amadou Mountakha fii rek la dugg. su paree day dellu waaye nag cër yi nga am ci moom te dem ni sëñ ceexum sëriñ caariw sëriñam ba ma demee poroxaan dem naa cox na baali xam na li muy def ci moom moo tax bu ko defee nun ñëpp nu déglu ko mu ne xanaa kaddu yi du bari de mu ngi bu baax soxna si soxna Bali mu ngi ziar bu baax soxna Bali Euh, man ak euh, délégation bi ma àndal jóge ci président de la république. ne moom moog délégation bi ma àndal jóge ci président de la république. Serigne Ablaye lim na ko léegi. ne lim naa ko léegi. muy euh, le ministre Serigne Mbaye Thiam di ministre de l'eau et de l'assainissement. Serigne Mbaye Thiam ministre bi àndanteeg moom di kenn ci moom. ak Abdou Karim na yore wàllu commerce nekk porte-parole du gouvernement. Abdou Karim Fofana moo yor wàllu commerce moo yor ministre la fonction publique. garaba mu nga xam ne moo wàllu liggéey bi ak xëy mi ak suñu xarit suñu nattango euh, Alioune Sow di ministre de la culture. Alioune Sow mi nga xam ni mooy ministre bi ñu dénk aada ak cosaan. fekk fi gouverneur wu euh, Kaolack di Ousmane Kane ak préfet bi di Babacar Ndiaye. bu Paskoto Babacar Ndiaye. ak sous préfet yi nekk si gox bi yëpp. ak tey dañu ñëwoon fii ci euh, ndigalu président de la république son excellence Macky Sall ci Poroxaan ci Poroxaan ngir euh, jottali ngir jottali nuyoo nuyoo ziyaara ziyaara ak ndokkeel ak ndokkeel réew mi yëpp réew mi yëpp jëmale ko jëmale ko ci soxna su sell ci soxna su tedd nekk ci bërëb bu sell. nee nekk ci bërëb bu sell. bàyyee ñoog lu sell. bàyyee ñoog lu sell. muy law ba tey yegg ci fii ci muy law ba tey yegg si fii. ci bis bu mel nii. ci bis bu mel nii. Euh, màggalu poroxaan. màggalu poroxaan. ñu ciy fàttaliku. ñu ciy fàttaliku. Euh, soxna Mariama Bousso. soxna Mariama Bousso sa maam. suñu moom jaaratullaahi. suñu maam jaaratullaahi. liñ koy fàttalikoo nag. nee liñ koy fàttalikoo nag. mooy jikko ju rafet. mooy jikko ju rafet. yar. yar bu mu daan yar. bu mu daan yar. ndongo yi. ndongo yi ak nangoo jaamu yàlla. loolu. nee loolu. def njeexit lu rëy. ci lim fi bàyyi. ci lim fi bàyyi. maa ngi wax léegi ci cérémonie officielle bi. nee ni bis bi nga xamante ni. ni ji na suñu borom. wuy ji na suñu borom. tiis wu rëy. tiis wu dal na ci daara ji waxuma jooy yi nga xamante ni ndongo yi daan nañ ko jooy yi ndongo yi daa jooy ci taxaw bi mu leen daan taxaw bi soxna jaara doon taxaw ndongo yi waaye dañoo jël seen xalima waaye capp ko ci seen rangoñ capp ko ci seen rangoñ def ci ay marsiya yoo xamante ni ñu ngi koy waxtaane ba tey loolu mooy li nga xamante ni ne loolu mooy li nga xam ni gis nañ ko muy woy poroxaan ba tey muy woy poroxaan ba tey moo tax président jox itte ju këri diine fii ci Porokhane ku ne gis na taxawu bi nga xamante ni def na ko ci daaray maam daara yi def ko ci dëkk bi ci wàllu tali ci wàllu courant ci wàllu assainissement ci wàllu ndox ba lii nga xamante ni sumb nañ ko. ba lii nga xam sumb nañ ko. te bu soobee yàlla léegi mu yegg. te bu soobee yàlla léegi mu yegg. mooy résidence entièrement équipe mooy ñu koy wax kër gan. damay wax nii kër wax ni. diine boo dem ci réew mi këru diine boo di nga teg ci sa loxo. da nga wala nga xool ci sa bët. wala nga xool wala nga dëgg ci loo xamante ni. son excellence monsieur le président de la république Macky moo ko fa def loolu. loolu nag yitte. ne ju kawe. ju ju mu jox diine la. xam ni nit. xam li koy tabax du koom. la koy tabax moo koy tabax. loolu nag. loolu yàlla daf leen ci féetale soxla si. ngeen di toggat jikko yi. di toggat yi. loolu mooy kaddu yu gàtt mooy kàddu yu yi nga xamante ni buggoon na koy kat di leen ndokkeel bu baax ci bis bi te xam nañ ne bis bi da nga ciy taxawee ñaari ñaari tànk da euh, taxawee ndax bokk ci njaboot gi bokk ci famille bi mais bokk ci tamit ndax sa turandoo jërëjëf habli safinatan bi kullil janna min daaratil minna ni yaasal minna ataaniyal marka bu fii daari minnan hindata sin tadduxule nii daari mi nan bi nu sant yàlla sunu borom julli ci sangi sangi sayduna muhammad di sant Serigne Touba Khadim Rasoul tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér naal yi mu naalal lislaam naalal ko Serigne bi mu àggale koog sagom te nu ànd koog moom ba mu naal yeneen i naal te nu fekkee waat ko te tal ko ndax ñoo doon ñaan naan yàlla na université bi mat te mu fekke ko. incha allah altine lañ koy tàmbali waaye ñoo ngi koy dagaan di dagaan sëñ Touba mu naalaat yeneen i naal nu àndaat kook moom ba muy naal di naal di naal téeméeri at yu tàmbali tey yàlla na ko yàlla defal. di siyaare bu baax mboolem kilifa yi ci jataay bi ñu yëkkati kàddu yi sell yu bàyyi ko ci soxna Baali taxa bintu Serigne Soy bu Xaadim Rasool jëm ci délégation officielle bi nga xam ni ñoo fi teewal son excellence président Macky Sall ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Diome di doom ci kër gi di fi taalibe di fi xarit di fi soppe nuyu bu baax monsieur Gallo Ba mi nga xam ni day meeru Mbacké moom di doom di xarit di taalibe ba noppi di dëkkandoo di nit ku baax di ku ami taxawaay yàlla na ko yàlla sàmm monsieur le ministre Aline Sow noo ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare jox la sa wàccuwaay bi nga xam ni yàllaa la ko jox nuyu bu baax sunu baay bi di Serigne Mbaye caam démb rek ci waxtu wi ay teraangam moo fees dell ci buntu kër gi ñoo ngi koy sant di ko gërëm taxawaay rek la am ci soxna si Serigne Moussa Abdou Karim Fofana moom nag day doom di xarit di soppe di taalibe di lépp ci ci Serigne bi waaye di lépp nag ci soxna baali ndax ab murit day am identité te moom buñ ko tuddee rek ñëpp ne Serigne Abdou Khadir ne sëñ Moustapha mu sëñ Abdou Khadir yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar alimaane moom mason spéciale poroxaan moom alimaane mooy teeru gan ñi moo leen di dalal di leen taxaw na mu doonee maire ba ni mu yeggee ci conseil départemental bi lépp musta tàggoog soxna Bali musta tàggoog sëñ Muntaxa musta tàggoog sëñ Basiru sëñ Abdou Khadir noo ngi lay nuyu bu baax di la siyaare nuy bu baax nag gouverneur yi ngeen àndal ak préfet yi ak sous préfet yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu ci ci turu soxna Bally mu mel ni nag bi nga ñëwee fekk nga fi mbokki boppam xaritam di kenn ci moom muy Adja Ndeela Wade moom it ñu ngi koy nuyu bu baax te te di ko siyaare te it di ko ndokkeel di ci ay taxawaayam ak i jëfam fii ci bis bi ndax li tax ñu leen koy gaaral mooy yéen ñi nga xam ne yéen la président yebal kër gi seen kër la lu fi waay def warees na leen koo mën a seereel Adja Ndeel dafa taxawaay yu am solo indi na fi jëf yoo xam ni mënees na cee màggal ba koor ci ba korite ba tabaski soxna si ne nañ leen ko seereel doomi boppam yii ak rakki boppam yi bokkal Sëñ Tuubaa ñëpp ngi toog kii nga fekk wal mooy soxna maam Asta mu Serigne Sidi mu Sëñ laat soxna Bintu Mbàkke mee toog doomi Sëñ Seex Fay la mu Serigne Moodu Abib ñuy siyaare bu baax seen doom yëpp ñëpp a ngi toog soxna maam say beleel mbokk ci yéen mi ngi fi soxna Wali Mata Kebe mi ngi fi ak soxna maam Fatima Mbàkke ñi toog mu Sëñ Moodu ñu gën koo min ci soxna Faat Ja ñoom soxna Maguette Cuun ak soxna Kiné Cuun ak mami ak ñi ñu àndal soxna Anta Kebe ak délégation mi ànd ñu ngi toog madame Sarr bu Lamine Sarr ak ñi fi teew ñëpp bu ma duggee ci lim du ma juum waaye dama dul matal soxna Baali wax ni nag mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm monsieur le ministre yow kër gi kenn du leen fooy jaar kenn du leen fooy aw ndax démb ci waxtu wii rek madame Diop mi ngi fii toog toog fii ci tànki soxna si ànd ak Moustapha ak sëriñ bi waaw ak sëriñ Moustapha Mbay ñoo ànd ñëw ànd ak moom ñu ne ci soxna si fii la yendu démb teraanga yu ne moom mu def ko fi te loolu lépp ni sa taxawaay la yaa ci xirtal yaa ci jiital yow nag yàlla dalaa defal nga ami soppe ami wëllëre fii ci kër gi ndax fi mu ne nii Moustapha Kouta mii ak Mountakha Ndiaye Gabon bi xëyee ba tey gan gu ne ñëw na fi waaye daanaka yitte ji sax so so sonn ñu ti ngir eh, di la xaar te ñoom it amuñu lu dul la soxna baali soxna si amul lu dul ñoom kon yow kër gi day sa kër noo ngi lay siyaare bu baax di la ndokkeel di la jox di sa wàccuwaay kaddu gi rafet na macha allah saa boo yëkkatee sa kaddu rek nit ñi danañ bég te kaddu yi dana tegu ci yar dana tegu ci teggin ba noppi ak taalibe it mooy li nga xam ni deesu ko deesu ko deesu ko jéggaani fenn day loo xam ne moom yàlla la ciy nampatal keroog bi Serigne Cheikh Saliou di liggéey jumaam jee ca dakaar Almadi bokk saaku ciment yi ñu fa njëkk a wàccee seetaan naa vidéo boo xam ne bokk nga ci ñu doon yandu saaku yi loolu yi nag mën naa jur lu ne kon soxna saa ngi lay sant mi ngi lay gërëm Serigne son yi bokk sëñ Saliou ñoo bokk wéyjur bu góor ñoo ñoo bokk wéyjur bu jigéen kon yow sa dara génnul la soxna Baali mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm délégation bii nga àndal ñoom ñëpp soxna si sant na leen soxna si gërëm na leen ci seen taxawaay ak ci seen jëf mu mel ni madame première dame madame première dame Marème Faye Sall moom it macha allah indi na fi teraango yi bari teraango yi doy jiital ma Mamadou Ndiaye Rahma bu Kaolack mu ànd ak waa région bi yëpp ak waa département bi ba ci commune bi nu ànd ñëw fii ànd ak waa de servir Sénégal teraanga yi ñu jëf ko ci bis bi loolu soxna saa leen koy seereel président de la république nu ku jàpp soxna si la ku ko fonk la ku ko tée te loolu mooy lu àddina bépp maa xam ni mu def sëñ Muntaxa def ko muy baayam di kilifaam loolu day doy sëkk ndax soxna baali benn bët la am sëñ Muntaxa la ko xool benn yitte la am muy sëñ taxaa kon moom képp ku téye sëñ taxaa moom nga téye ku jàpp sëriñ bi moom nga jàpp te nii mu def sëñ taxaa doy na sëkk soxna si nee na loola buñ ca yemoon day daal di doy seen délégation bii bi ngeen ñëwee bu ngeen yemoon ci sëriñ bi mel na ni ak si ngeen ci moom ni ko Baye Ablaye Mbaye pexe waxee léegi wax ni da a jóge ci sëriñ bi noppi ne naanu dem ci soxna Baali nee na moom bu ngeen yemoon sëriñ bi rek mel na ni agsi ngeen ci moom waaye li ngeen def nag mottali jëf la ak mottali yéene yàlla leen yàlla fay yiw soxna si bég na lool mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di gërëm délégation bi kenn ku ne ci yéen am na relation boo xam ni relation bu particulier la kenn ku ne ci yéen am nga say engagement singulier yoo xam ni moom nga am fii ci kër gi ci sa digganteeg soxna Baali loolu yi nag moo ngi ciy sant moo ngi ciy gërëm ñoo ngi daal jéego yi ñëw yi ak jéegoy dem yi yàlla na lépp doon ay yiw ñuy sàkk bu baax it ngeen dolli ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla aar ko ndax moom it fii mu ne taxawaayam taxawaay la boo xam ni soxna baali mën naa ni Sénégal gépp lay liggéeyal soxna baali mën naa ne nguur gépp lay liggéeyal soxna Bali mën naa ne Sénégal yëpp lay liggéeyal ndax li xam ni mi ngi koy jëf ci ay taxawaay. dafa am point bu am solo bu ma doon wax dama ne soxna baali mii bu ne servir le Sénégal moom moo tax. buñ ne régulateur de société moo tax buñ ne koo xam ni population bee ko tax a jóg moo tax ndax fondation bi nga xam ni muy euh, fondation Soxna Bali jëf jim ci jëf te tàllalul kenn loxo di ko def ay ak ay propre moyen di ci jàppale jullit yi di ci dimbali doomi aadama yi kon moom li muy def Sénégal la koy defal mooy jenn jigéen ju ubbeendoo ñaari jumaa ci benn àjjuma moo ko defagum lo nag booba tàmbali la yeneen jumaa yi ñi en chantier institut yu mag mi ngi koy tabax fii ci Poroxaan ak ci yeneen dëkk li mu defar ci forage ak li mu naal te loolu lépp Sénégal la tax mu di ko def dencul dara lu jëm ëllëg soxlaalul dara boppam liggéey sëñ Tuubaa bii ak dimbali ñi rek moo ko ñor kon nag moom yell na bu ngeen fi ñëwee ñu saayireel leen loolu kenn ku soxna baale am doo ko gis ci dara lu manqué wala ci dara lu matadi ndax yar na njabootam tett na leen dem na ci ñoom dignité def ci ñoom personnalité def ci ñoom ngor butéel nag la ca biir moom la saañ bay xeeñ moo waral sax njaboot du nu deraaye du nu dëng-dëngal du nu def lenn ci sa ginnaaw la nu ne ni nga ne ci ginnaaw sëñ bi loo wax loolu la nu wax foo xool sa bët foofu lan ko xool monsieur le ministre nag loolu moo doonoon kàddu yi mu ne ma nuyoolee waat la bu baax ak soxna maam Bousso mii monsieur Abdou Lahad nee na moom mi nga xam ni moom leen dénk Cheikh Mamadou Fadal mii magam sëñ Fallou mu sëñ son yi bu mu fay liggéey liggéey bu rafet ak doomam ji di soxna maam say Mbàkke belel moom sëñ Cheikh say mii xalifa sëñ bu ndax ñoom ñëpp yitte ji ñu am ci moom kenn kenn ku nekk ñoom ba se sa lépp lu lu tolloog semaine ñëpp ngi ci dëkk bi ñoom ñoo ne ci waañ wi ne ci séddale bi jiite liggéey bi te xam ni soxna jaara kenn rek la ñoom ñëpp ko bokk waaye cër bii mu ci am nag ñoom dañ cee ànd ak moom te nangul ko ko kon noo lay sant noo ngi lay gërëm di la yóbbante nuyoo ci président sant nañ ko gërëm nañ ko assurément être donc véridique c'est tout d'abord être exempt de vice et pour être leader il faut avoir euh, quatre choses assumer assurer ñeme échec ak soog ni wasalaamaaleykum dellu kañaat bàkkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bàkkaat wayaat dellu sulliwaat ndam soxna jaara ki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara